fiche de parrainage à qui on refuse une fiche de parrainage loolu aussi ñu bëri ñaawlu nañu ko jàpp ne DGD dafa outrepassé et prérogative am. du tout du tout xam nga tey. DGE plutôt. waaw DGE xam euh, e, pour le citer euh, Thiendé la. Mhm. kooku lu ko waaye bañ bañ bañ xam ne euh, c'est un fonctionnaire rompu à la tâche organiser na fi élection bu ne. à notre faveur ñuy gagné comme à notre défaveur on a perdu pratiquement suñu baston yëpp. si magistère u Thiendella boobu ci lañ ko ñàkkee. oui mais y' a toujours y' a toujours eu des des bruits ah, de couloir non attends même bi passé dépôt yi c' était compliqué. Euh, non muy jur muy muy muy muy muy Touba. Mm-hmm. Dakar muy Dakar muy Thiès Saint-Louis muy Ziguinchor mm-hmm. muy Saint-Louis. donc tey xam nga ñoom c' est des fonctionnaires xam nga tey neex na ngay créer au voilà di yuuxu ni un peu partout mais li ñuy def xam nañ ko. mais fan lañ ko teg refus bi. bon parce que spécialiste droit yëpp la ñu wax mooy conseil constitutionnel moo waroon a atte atte atte loolu. waaw mais xam nga tey euh, bu ñu la génnee ci liste électorale yi mais yow sur quelle base nga bëgg a ñëw ne man dama bëgg a doo voté. mais est-ce que est-ce que les 126 qui ont qui ont qui ont retiré DGE pour am nañu vérification que dañu ñu ngi ci liste yi. mais bien sûr ils ont tout vérifié. ah mais dañ koy vérifier il y a un moment de vérification. am na ñoo xam ne jot nañu ay fiches ñoo xam ne. voilà non ils ont il y a un moment de xam nga c'est des noms. c'est des mm-hmm. noms donc. oui on fait appel à la machine et on a tur la tur la ak sant voilà balaa ñu lay jox sa fiche dinañu vérifier. Mm-hmm. donc euh, seen liggéey la ñu def. maintenant comme on dit pays pays nous sommes dans un pays démocratique les voies de recours sont là. Mhm. je pense que ñoom ils l'ont exploré. oui oui def nañu recours mais yamuñ ci aussi. voilà bu nañu en essayant de parrainer parrainer le maximum euh, possible de de candidats loolu noo ko noo bon soit ci li ma yaakaar soit c'est pour sécuriser seen euh, seen seen seen militant électeurs yi waaw pour pour pour pour que yeneen opposition bi. mën ci bañ a profiter mën ci bañ a surfer ou bien bon en tout cas loolu laa leen di souhaiter. mais bu dee nag dañoo nekk ci pëccëxoo ak xëccoo. Euh, et vous pensez que ça peut aller jusque là ñu dem ba ci biir gars yi. ah bañ bàyyi. sa se dessine parce que tey parrainage citoyen la amoo ñoom mën nañ jàll je pense. à l'assemblée avec les députés qu'ils ont mais kenn jàll c'est-à-dire député yi kenn kese lañ mën a parrainer. waaw donc sur les cinq personnes la kenn moo ci mën a am la faveur des députés. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ñu demee parrainage citoyen aussi. seen militants yëpp mënuñu. pare na les quatre restes donc on va voir ce que ça va donner mais en tout état de cause bu dee dañ ko def pour caacaay politique dañuy nax seen bopp. politique politique réalité la kenn mooy jàll ci parrainage yi mënuñ ci am benn mënuñ ci am ñaar te même buñ ci amoon ñaar tamit. il faut ñu confirmer kenn pour la. coalition choisir ouais. voilà donc euh, man dama jàpp ne dañ nekk seen ñëfa xale yooyu ba tey mais ñun caaxaanuñu ñun fawuñu. vraiment mhm. li ñu def xam nañ ko am nañ yaakaar que sénégalais aussi ñu ngi xool xam nañ lu sérieux la féete.